lan nga yëg. ah yëg naa daal loo xam ne sori na lool ci sama biir xol bi ndax euh, man affectation bi le 25 octobre ba mu amee ba léegi dama jaaxle sax ci manifestation bi bi mu indi fii ci biir académie de Thiès ci biir région de Thiès sax laa mën a wax nit ñi niñ ko jëlee dañ ko méttitlu ndax peut départ bi ñu gis mais euh, bu defal leen dama naan leen. man agent de l'État la euh, je suis inspectrice d'académie fonctionnaire de la hiérarchie A1 suma autorité muy ministre muy président fu ñu ma soxla rek foofu lañ may yóbbu fu ñu ma fii ngay gën a mën a servir système bi foofu lay dem te fas yéene tamit ni ma servir système bi fii ci académie de Thiès fas yéene koo def ci académie de Kaolack incha allah tey nag sargal yi dafa yàgg sax. def nañ sax micro ouvert def ay rajo ay syndicaliste boobu moo gën a yéemu ay syndicaliste le SYCUSEMS le grand cadre ñu toog ci rajo bi ne dañuy rendre hommage à l' inspectrice d' académie loolu ku mu doyul dara du la doy tey c' est l'amicale de des des chefs de services régionaux de la région de Thiès ñoom ñoo ñëw teew à seen président bi ñëw li ñu wax ñëpp dégg nañ ko ci man man moo ma yéem dama jaaxle ndax gisuma woon loolu yëpp xaaruma woon manifestation bi ma gis lépp fii lu ma bett la mais aussi motif la boo xam ne dina ma permettre man ma gën a euh, góorgóorlu gën a euh, takk sama sa liggéey liggéeyal askan bi liggéeyal sama réew liggéeyal sama système éducatif ndax xam naa ne loolu rek moo mën a fay nit gis nga li nit ñi def ci témoignage du parent d'élève du élève du euh, jàngalekat du syndicaliste ñëpp ñoo xam ne sax ñoom bokkuñu ci ñu ngi ci di wax ñoo xam ne bokkuñu sax ci système éducatif ñu ngi ciy wax donc loolu man dama ci sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi fas yéene gën a góor góorlu li ma def fii Thiès ba ñëpp di ko wax te man ma doon wax ne fii defuma fi dara mais ñëpp wax ne ne lii moom am na lii am na dinaa gën a góorlu gën a liggéeyal sama askan gën a liggéeyal sama réew gën a liggéeyal le système éducatif au niveau de la région de Kaolack incha allah. bon safaan de moom amu fi parce que benn expérience laa fi vivre mooy redéploiement bi. mu indi tuuti tolof tolof ndax manque de communication manque de information juste bu indi jafe-jafe ci diggante euh, ñun ñiy jël décision yi ak jàngalekat yi mais nag nañu xam ne ne loolu sax du du saafaan en fait jaar-jaar la woon rek te bu syndicaliste yi seen bopp toogee ci rajo bi ne IA bi lim defoon loolu la waroon def que ne ñun bu ñu amoon bonne information yi sax du nu grève benn fan man loolu rek man giifal na sama xol te euh, xol bi jógutoon sax ndax lu waroon nekk la man nekk naa fi doon grève euh, léegi ma nekk ci euh, à la tête de l' bu dinaa mën a comprendre ay nit ñoo xam ne comprendre ñu ay yenn décision yi ñu grève mais ba ñu waxtaanee dañoo juboo te tey quand les syndicalistes ñoom ñu reconnaître nañ ne que ne jarutoon grève sax loolu rek waaw léegi leneen li mooy euh, li ma fi marqué mooy dama ñëw fekk ay góor ak ay jigéen ñoo xam ne dañoo xarañ ci seen liggéey lépp lu ma suub rek ñu lu ma sumb rek ñu teg ci seen ndox jàpp ci ba nga xam ne ne tey euh, amul dara dara dara loo xam ne ne yëkkati naa ko rek te ñoom jàppuñu ci te mu defal ñu succès euh, suñu résultat yi gën nañu baax construction yi si académie yi Sénégal yëpp ñun ñoo njëkk a pare BST te tey li ma gën a neex nag mooy BST bu Tiwaawan mu ngi fonctionné liggéey nañ ko ba nga xam ne ne def nañ ay réunion yoo xam ne ne euh, ba depuis mois de septembre may dem Tiwaawan ñuy rencontrer les principaux IF bi directrice BST bi ba tey BST ci yu bees yi vingt yi ñu waroon tabax fii ci biir Sénégal benn bii bu nekk Tiwaawan rek moo ci fonctionné loolu nag mbégte la ci man te loolu yëpp liggéey rek moo ko waral sant ci bu baax parce que tamit ñëpp a si jàpp tey élèves yi ñu ngi jàngi ci BST bi ndax ku gis ne ay ñaar centaine de millions lañ fa investir ba ko tëj noonu rek loolu amul njëriñ donc loolu bokk na ci lu ma bégle lu ma bégloo ci liggéey bu ñuy liggéey plus nag yoo xam ne def nañ ko ci njàngalekat yi pour améliorer un peu seen condition yi si avance bac bi ci seen indemnité yi fii ñun fay nañu indemnité yi euh, bag bi engagé nañ ko donc euh, daal ñu ngi ci sant yàlla bu baax salaire yi fii du tardé donc euh, ñu ngi liggéey te am na ay yeneen yoo xam ne tegoon nañ ko mais xam nañ ne loolu xarañ nañu ñi fi nekk xarañ nañ xarañ boo xam ne dinañ ko mën a mottali incha allah. Hmm. Hmm. dénk leen rek ne euh, Kaolack sorewul ay quelques kilomètres rek la mais xol yi ñooy gisee du nit bët nii ak yaram du loolu ay xol ñooy gisee te xol yi ñu ngi gisee donc distance amu fa te kon ñu ñëpp dañuy continuer di liggéeyal système éducatif bi xameel bi dootul dëñ ay mag ay rakk ay yaay laa fi am ay papa nijaay laa am fii ci Thiès te loolu du ma sa dëñ du distance moo koy dindi kon nag euh, ne leen ñu métti na dëgg la ñun ay nit rek la ñu nit moom da ngay nangu dogalu yàlla mais euh, affectation euh, fonctionnaire moom loolu du dara dina métti nag ndax xameel bi miineel bi ak façon liggéey bi façon bi ma doon liggéey ak ñoom waaw loolu la ndax dañ ci doon boole yërmande bu baree bare ci liggéey bi di nga liggéey nag loo war a def di nga ko def waaye nag bu yërmande jotee tamit dama daan def affaire yërmande ci ak tamit reconnaître tamit seen effort yi reconnaître seen valeur parce que ay góor ak ay jigéen yu am valeur ñoo fi nekk ci biir académie de Thiès. Thiès 24 di la gërëm di wax sa kàddu sama kàddu bu mujj mooy euh, man nekk inspectrice d'académie de Thiès moo nekk sama premier poste d'inspectrice d'académie dootuma ko mës sa fàtte ndax li ma jàng Thiès. def naa trente ans trente trois ans de service jànguma ko ci benn structure bu ma jaar deux ans yi ma def Thiès li ma jàng mosuma ko jàng fenn donc loolu maa ngi koy sant di ko gërëm gërëmee waa Thiès te comme fii laa moo moo njëkk a nekk sama poste d' inspectrice d' académie Thiès dama ko dugal ci sama biir xol fu ma mënti dem ci àddina euh, Thiès moo jiitu ci sama xol daal te dina ñaanal Thiès mu jëm ci kanam rek fi ñu ko bëggoon yóbbu. mu dem ba dépassé ko ndax bëggoon nañ ko yóbbu fu sore Thiès bu demee fu sore fu nekk ñu ko koy tagg ne ñoom ñoo gën résultat fii ci Sénégal man dina ma bégloo torop merci